salafiste Sonko moy andi violence mais qu'est-ce qui est plus violent que lu ngeen def tay lan lan moko ko violent quoi ndax ki dafa wax ci sëñ bi ngeen tal otom pourtant nee ngeen Sonko fi andi lolu ñaata ñi tay tok ci télé bi télé bi par vendredi di sagu Ousmane Sonko nan c'est un pervers c'est un c'est un c'est un ñaata ñi takoy def sms ngeen gis wa Pastef gëna tal auto ken yeen les jeunes Pastef bay fallé won nañ leen solution bi dé bay fallé dugg nañ ci xeex bi gis nga ñiy saaga Sonko nii fet comme les Baye Fall ñu xam Sénégal après fu muy mujjee ay ñoom Amath Suzanne Camara ay ñoom Mambay ña di génn bés boo nekkee manifestation dajeek ñoom ci oto def leen nii taal leen foo lay brûler vif ñu xam après fu muy mujjee ba Macky Sall wax moom moom mu ngi seetaan lii non te dafa dénk Moussa Fall Touba ñu ñëw taal nii oto doomu jàmbur boo xam moo ko ñaqal boppam man yéen nii sax laa koy jàppee nit ki liggéey ba ñakkal bopam yow nangu wo liggéey yaa ngi tal top nit ki sa way ku nekk sa philosophie liggéey yow japp nga ni dem tol moy sa liggéey ki japp na ni liggéey daan dolem am ay otomak yoy moy moy liggéeyam même bu waxee bu joomi rectifier ko mais pas taal otom taal auto bi bu xasse ñew rek soxor ñew na te dans le mouridisme warul am ku soxor munta nekk violence bi am touba tay mënuma ko d'accord munta nekk ndax mourid la seigne bamba de leen ni fu ñuy wax si man sax ba di commencer dépasser joggé feu lu ñu def tay lu leen neex lañ def moo tax yéen tam booy solution la leen di jox de Baye Fall won nañ leen tay solution bi Ousmane Sonko nak il a dépassé le cadre du leader politique c'est un guide maintenant politique pour ñu bàyyi ko saga ni Baye Fall def noble ni tay pour ñu bàyyi ko saga yeen bo leen jàppoon kenn ci ña koy saaga ci télé bi jom Thierno Diop ay ñoom Bamba kasse naa feqi toog di jéem a subordonné Ousmane Sonko pour nek conseil en communication ñom gars yi bunti bi rek mu commencé tok di yoxo ñu ci télé bi ñun xam nañ lépp dañ dul wax ay pap Djibril lëg yëpp ils ont essayé à intégrer Pastef pour dem ay communication siiw Sonko xool mo leen tax di jëfuru xam nañ lépp mais duñu yàkkante mais boy